tal leen ak jàmm ci li yéen kay xëy gën tey ci Rewmi FM Rewmi Quotidien ñi ñu joxoon baramu tuuma ci mbirum fraude ñeel wàllu bag bi ci atum ñoom ñëpp ñu ngi woon ci yu diis yoo xam ni ba léegi kenn du def njuuj yi ni ñu xool moo xam élèves yooyu wala sax proviseur bu lycée tëdd ci biir kaso bi ndax lañ leen joxoon baramu tuba yéen kay bi ne élu yu lay yoon dafa jàpp ne ñoo ko def ndax proviseur bu lycée bu kawoon ci ne da kaw ñu nañu ne daan daal leen ko waaye moom état bi tamit mi ngi sàkku jokko ndàmp pay ndax da koo tooñ avocat yi nga xam ñoom ñooy layal fanweer ak juróom-ñeent ñoo la ñuy joxoon baram tuma ci mbirum njuuj njaajule ñoom ba fi ñu toll nii gëmuñu li nga xam ne li procureur daal dina koy euh, bii war na a sukkandiku ba tëj seen client wal fu ko tey jénne li liir bon mooy euh, lépp fanweer ci li nga xam ne ñi ngi leen joxoon baram tuma ci frotte ñeel mbirum bag boobu ci 2017 bu ñu mooy la euh, juróom benn weer ba juróomi at danañ ko tëdd ci biir kaso bi yaa ah, professeur yi nga xam ne ñoom itam ñi ngi leen toog lu ëpp fukki at yoo xam ne duñu ko jàngale waaye wal fu ko tijjene li ko ci jaaxal rek mooy am na xam ne ay agent la ñëw doon liggéey ci office di bac waaye booba tey fi mu yoon waxul ci ñoom dara li inspection générale d'état wax tey jëlee ci lu jëm ci mbirum Petrotim kenn niñ koy doxalee Dakar Times xëy na ci tey ne rapport enquête bi nga xam ne bi ñeel na mbirum Petrotim bokk na ci njomb yi gën a mag yi nga xam ne état bu Sénégal def na gi ci 2012 ak léegi ay njombe dong la ñu ci réew bokk na ci ci njombe yooyu mbirum Petro-Tim mbirum Petro-Tim boobu lay ni ki 2012 ba tey sax am waaye booba tey fi ñu président Macky Sall ak ni ci tegee coñcoom tax na ba fi ñu booba tey dara leeru ci eh, bu ñu muyul mbirum Serigne Assane Mbacké nekk responsable bu parti démocrate sénégalais ca diwaan bu Touba dana leer ci liñ koy joxañee baramu Touba ñel salfaañe goo xam xam ne gi dañ ne bu ñu sukkandikoo ci xabaar yi nga xam ne am na ko moom Serigne Assane Mbacké ci boom responsable parti démocratique sénégalais ca bu Touba yoon woolu na ko niki ñeenti fan ci weeru sule tey ngir déglu ko ci loolu lay ñu koy joxe ñi baramu tuuma mu taxit source ànd li liir buur mooy moom Serigne Assane Mbacké bu fekkee li ñu koy tuumal dëgg-dëgg moo ko def gisuma ko mbaaw ndax daanin ko nar daan nar naa diis lool tiis dëgg-dëgg moo am niki démb ca googu lay am ca makkaanu chef agence bu CNCS nekk ca doon bu Kédougou Vox Populi ne ñi ñàkk seen bakkan bokk na ci Mariama Kanté nekk soxna ci Mamadou Kanté ab jarbaatam di xaaw mbaalo rakkam di Aminata Kanté doomam di Seex Razam Kanté ak Xasimu Kanté yéen i ñoom ñi ñëpp ñàkkee seen bakkan ca quartier Gomba yéen i cabinet ci genn njaboot la ñu bokku keneen koo xam ne ki moom itam ñàkk na bakkanam ca doon bu Médina yéen i cabinet di enquête ne mooy Mamadou Diop moom Mamadou Diop ci boppam yéen i cabinet ni ki bërkaat la ñàkk bakkanam ca doon bu Médina ñàkk bakkanam gëmu ñàkk bakkanam ak njabootam gi doon joxoon baramu tuuma police yi gannaaw docteur yeeg bi nga xam ne bi def nañu ko mandargal ne dëgg-dëgg ne moom moo di Diop dañu ko final ba mu ñàkk bakkanam mu taxit ak njabootam di sàkku dëgg-dëgg ci yoon mu indi ci ay leeral enquête kay ne bu ñu xool dëgg-dëgg kay ñi final bi ñu ñàkk seen bakkan ci biir kaso bi mi ngi bëgg a bëri ci réewu Sénégal ràcc lool tamit ay yoon ak jointe yi ñu ci indi woon na képp ku ñu teg loxo ci tàng-tàng bi rek sa avocat yëngatu ci mbirum ger ci yoon wi di dogale ay doomu aadama di leen ger yoon ci boppam teg nañu ko loxo Rewmi Quotidien yoon l'enquête bi nga ngir dakkal wàllum mbënd mi jafe-jafe nga xam ne ñenn ci askan wi ñu ngi koy jànkonteel na ba conseil interministériel ñu amal ko niki démb jagleel ko wàllum mbënd mi waxtaane ko lu ëpp benn milliard ci suñu koppar yi ni kabi di Rewmi Quotidien état bu Sénégal teg na ko ci taabal ji ngir xeex wàllum mbënd mi ci dool tamit ministre bi ñu dénk lépp lu ci wàllu ndox di Mansour Faye ne jël nañ ci ay ay mesures d'urgence yoo xam ne danañ fexe ba lépp loo xam ne jëm na ci matukaay yi ne war nañ koo jël laata naat bi yegsi rek ñu mën koo jël wàllu tàggat yaram coupe du monde 2018 observateur ak record yéen kay ni gayndu Sénégal ba tey kay ñu ngi waajal dëgg-dëgg seen jonganteek waa Japon ginnaaw ndam li nga xam ne am nañ ko seen digganteeg waa Pologne yéen kay bi ne ñoom ñëpp daanaka fi ñu toll nii leen waajal waajal gu mucc ayib ngir tamit ñu daal di fexe ba jongante bi nga xam ne a dox seen digganteeg Japon daanaka ñu jàppee ko ni ab final ñu mën ba fexe ba jubóole Idrissa Seck ak Talla Sylla mooy Baba Diaw Baba Diaw yéen kaay bi di Rewmi Quotidien def na kem kattanam ba fexe ba Idrissa Seck njiital parti Rewmi ak Talla Sylla maire bu Thiès bokk menn penc ba joxante loxo mu tax yéen kaay bi ni joxante nañu loxo waaye ndax juboo gi ñu juboo ñoom ñaari kilifa yooyu la juboo gu dëgg la wala juboo la goo xam ne gi dañu tuur la ndëm askan wi dong